asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di baal ñu baax te di leen baal ak tey ñaan yàlla mu boole ñu jéggal euh, tey nag dañ fay ñëwoon ma ànd ak euh, mbokk mi di imam Mamadou Gueye ñu ñëw ci loo xam ne defoon nañ ci ab annonce fan yi ci ginnaaw mooy lu jëm ci wàllu daara ñu wax nga xam ne liñ ci doon wax biñ ko ci waxee ba noppi ci annonce boobu yàlla dogal na bëri ñoo xam ne maanaam indi nañ ci seen i encouragement ñii indi seen xel seen xalaat ñii jël seen i am-am def ci ngir rek jàpp ne projet bi ñun ak ñoom ñoo ko bokk ndax lu mën a xew projet la boo xam ne dafa jëm ci jullit yi jëm ci way gëm yi nit ñi nga xam ne dëgg rek mooy seen jubluwaay dëgg rek la ñuy gëstu te dëgg tamit ci lañ bëgg a teg seen tànk bëgg cee jëriñu bëgg tamit seeni njaboot jëriñu ci nga xam ne loolu rek moo waraloon projet bi xam moom lañ ci doon ci annonce boobu yàlla dogal na boobaa léegi nag dox nañ ci projet bi état bi nga xam ne moom la nekkoon di état wu xelaat ci jamono boobu te fekkoon nañu tàmbali di ci dox yàlla dogal na boobaa léegi am na ay avancement yu mu def loolu moo waral tey ñu ñëwaat fii ngir bëgg leen a yëgal li ñuy wax d'avancement au projet boobu nga xam ne kenn niñ ko waxee woon la nga xam ne moo doon suñu objectif bi suñu jubluwaay mooy fexe ba mën a am barab boo xam ne xale yi dinañ ci mën a jàngee alxuraan a di ko yàlla jàngalee mu mucc ci bépp xeetu idéologie nga xam ne day mucc ci li ñuy wax moo xam muy moo xam li ñuy wax sunnisme wala chiisme wala soufisme wala même ba ci nit di wax coranisme waaye islam képp moo ko tax a jóg téere bi yàlla képp lañ fay jàngale ak fexe ba nàmpatal xale yi ci li ko seetantal ngir ñu mën a xamal seen bopp seen diine ñu leen fi jàngale loo xam ne comme li ñuy wax enseignement général nga xam ne xale bi su fi génnee ci diir bi nga xam ne ci lay jàng alxuraan bi année bi nga xam ne ci lay génn day tombé mu war am lu ñuy wax certificat ci ni nga xam ne noonu lañ ko tëralee ginnaaw bi teewul tamit kenn ni ñu ko waxee moom ci anglais bi ak arab bi ba ci informatique bi ak ay xeetu atelier yoo xam ne dinañ mën di ko def ngir xale yi seen xel mën a ubbeeku ci domaine yu baree baree bari loolu it ba tey incha allah am li ci am solo nag nga xam ne tey moom lañ leen a mooy école bi na école la boo xam ne tur wi maam mu ngi tudd almuxbitiin nga xam ne maam tur la boo xam ne day delluwaat ci alxuraan nga xam ne ku dem ci suratu xaj ji dem xool aaya 34 ak aaya 35 ci aaya 34 bi di nga fa fekk baat bi li yàlla di wax naan wa li kulli ummatin jaalna mansakan li yaskuru sma allahi ala ma razaqahum min bahimati al anam fa ilahukum ilahun wahidun fa lahu aslimu wa bashir al muxbitin nga xam ne al muxbitin li muy firi dëgg-dëgg mooy ñi nga xam ne dañuy mooy ñi nga xam ne dañoo oyof ñi nga xam ne dañoo ëmb ak it ñi nga xam ne maanaam dañoo modeste nga xam ne loolu lay firi mooy nit ñu oyof ñi suñ borom nag bi mu leen di définir ci alquran dafa wax ne alladina ida zukira allahu wajilat qulubuhum wassaabirina ala ma asaabahum wal muqimi salaat wa mimma razaqnahum yunfiquun mooy ñi nga xam ne suñ leen di fàttali yàlla seeni xol dañuy nux nuxi te it ñoom dañuy muñ mooy kon dañuy nangu ndogal ci li nga xamante ne di jot te it ñu doon ñoo xam ne dañuy taxawal jokk bi nga xam ne dañuy taxawal julli te it dañuy joxe ci li nga xam ne maam moom lañ leen wërsëgal nga xam ne turu école bi dëgg-dëgg loolu muy nekk al muxbitiin nga loolu mooy turu école bi jubluwaay bi nag mooy tur woowa ñi nga xam ne ñoom la ñuy ci école bi ñu doon nit ñoo xam ne ci valeur yooyu lañ leen di yar nga xam ne dañuy doon ay nga xam ne dañuy doon ay muslim doon ay woy gëm yu wér yoo xam ne lépp lu ñuy dund ci kaw suuf dañ ci bàyyi xel yàlla seen borom ci moo xam ci li ñuy jëf ci li ñuy wax lu mu a doon nga xam ne dinañ mën a jëriñ seen bopp jëriñ seen bopp jëriñ adduna bi ci boppam xam ne jubluwaay bi loolu rek la ndax lislaam loolu rek moo fi tax a jóg nga xam ne dafa ñëw ngir niteel nit ñi ngir nit ñi kenn ku ci ne conscient ci li nga xam ne mooy mission woon ci kaw suuf ngir nga xam ne maanaam li ko fi borom bi indi ci jëriñ gi mu jëriñ ak jëriñ bu mu war a jëriñ ay moromu mbindeefam liggéeyam yàlla ci kaw suuf su boobaa moom dina ko mënal boppam nga xam ne kenn ni ñu ko waxee rek comme jamono bu ne saa su ne wax dëgg yàlla bi waxee projet bi bëri na ci ay ñoo xam ne maanaam jël nañ seeni téléphone woote ñii envoyé ay message di def ay encouragement wax dëgg yàlla ñii indi seeni xalaat ak seeni xel ñii tamit jël seeni moyen def ci ngir rek jàpp gi ñu jàpp ne lii kat ñun ak ñoom ñoo ko bokk ndax damay wax ne liggéeyal yàlla képp ku yàlla ku ne am na ci wàll te it yoonu yàlla képp koo xam ne gëm nga yàlla te muy dëgg ci yow am nga ci wàll kon dëgg-dëgg loolu rek mooy soxla si fexe ba daal jeunesse réew mi ñu doon jeunesse boo xam ne jeunesse bu conscient la doon jeunesse boo xam ne dañuy mën a amal njëriñ seen bopp mën a amal njëriñ seen réew mën a amal njëriñ ñi nga xam ne ñoo dëkkee ci réew mi te tey su boobaa loolu su amee danañ mën a jëriñ adduna bi yëpp te dëgg-dëgg loolu rek mooy jubluwaay bi amul leneen mooy ñu nekk daal ay nit ñu conscient ci li nga xam ne moo leen indi ci kaw suuf muy mission bi nga xam ne moom la leen fi yàlla indee ci kaw suuf dëgg-dëgg daal ma mission bi loolu rek la woon ma école bi tamit loolu rek ay jubluwaay objectif bi loolu sax moo waral tur boobu ngir ñu mën a xam ne lu mën a xew lu mën a doon lu ne borom bi képp la ñoom nga xam ne dañuy xam subaa dañuy conscient ci seen mission conscient ci doxalin yi nga xam ne moom la ñu war a doxalee te conscient ci ne suuf si fii ñoom ñoo ko war a tabax nga xam ne comme subaa dañuy xam ne xam-xam yi nga xam ne moo war ci ñoom ngir ñu mën a tabax suuf xam-xam ne dafa war ci ñoom ñoom ñu am ko ngir loolu mën a nekk kon daal dëgg-dëgg macha allah loolu rek moom bi tey léegi moom mi ne moom mooy directeur école bi ko li nga xam ne moo aju ci wàllu modalité yeeg yooyu yëpp moom dina ci ñu liñ ci bëggoon a dolli rek moo di ne. lu jëm ci inscription yi commencé na képp koo xamante ne programme bi ñu wax la doy na la mën nga ci 635 77 635 44 30 77 635 44 30 wala nga woote ci 77 264 31 16 77 264 31 16. mu ni kon inscription yi commencé na incha allahu daal li ñu fas yéene mooy ubbi école bi incha allahu le 4 janvier prochain école bi nag am na internat ak externe ñi nga xam ni bëgg nañu seen njaboot ak interne ci école bi nañu fexe ba jokkoo ak ñun te ñu fexe tamit ba njaboot boobu war a internet ñu fexe ba le deux fekk leen fi incha ñi nga xamante ne nag incha allah ñooy ñooy nekk. ñiy externe ñooñu moom incha allah buñ jokkoo ak ñun ba def seen inscription bu ko defee mën nañ ñëw ci altine bi allah loolu daal moo nekkoon liñ bëggoon nag dolli ci waxu Sëñ Mbacké Sakho wax na daal jubluwaayu école bi comme ni mu ko waxee noonu rekk la noonu rekk la di nuyu ñëpp daal di wax asalaamaaleykum